Je m'appelle Gabriela Ballini. Vous êtes je suis suisse euh, et je suis, je suis là en Boro, en Boro plage depuis le 2000. Ça fait 16, 16 ans. Je me suis toujours engagée pour améliorer la santé et les conditions de la santé de la formation. Et après, on a pensé que c'est le moment aussi, pas seulement la santé, mais de pousser un peu sur les écoles et l'éducation. Mhm. Comment évolue l'idée d'aider un peu cette... Bon, c'est surtout le maire qui nous a parlé, nous a accompagnés ici. On a vu l'état de l'école, on a vu les, les, élèves, on a vu les conditions qui travaillent les enfants, mais aussi la capacité des enseignants. On voyait que ces enfants étaient très, très, très bien préparés. Et les professeurs très engagés, on a dit on va essayer si on peut faire voir de de pouvoir réaliser en vrai l'école, que c'est dans tous des enfants. Ils ont le droit d'aller dans l'école. Il y avait aussi des serpents qui rentraient et tout ça. c'était très inquiétant pour les professeurs. La première chose qu'ils faisaient le matin, voir s'il n'y avait pas de serpents dans les bidons, comme ça. Et la priorité pour avancer. La jeunesse de maintenant, c'est le futur du Sénégal. Alors, il faut vraiment pousser pour l'éducation. Voilà, ça c'est ce que <laughs> je pense. les objectifs euh, en Boro, c'est surtout dans l'éducation, dans l'environnement. Il a, il y a une, une, association bien, une équipe bien formée, et voilà, bien structurée. On fait quand même la formation avec des partenaires dans la santé et dans l'éducation. un enseignant à la retrait n'est-ce pas waa enseignant bu retraité bokk ci Aprosem depuis plus de deux ans donc ñuy accompagner Gabi donc euh, association bi mu ngi yëngu ci domaine de la santé paj mi ak éducation ak environnement fii nag li ñu fi indi tey ci li mu wax mooy maire bi moo ko wax jafe-jafe yi nekk ci école bi après ñoom ñu ñëw fii xool vraiment xale yi ci condition yi nekk ay mbaar ay abri provisoire mais mu gis engagement jàngalekat yi nga xam ne jàngalekat comme ni ma koy waxee rek c'est comme un militaire partout où on t'a da nga fa war a liggéey def njàngale mi comme li tubaab di wax sacerdoce donc ci loolu lañ nekk donc euh, association bi effectivement mu ngi liggéey comme ni ma la ko waxee léegi ci domaine de la santé ci domaine de l'éducation ak ci domaine de l'environnement ba pare aussi bàyyiwul sociale bi dimbale doomu aadama bu ne ci jafe-jafe ba pare former les jeunes parce que am na xale yu bari yoo xam ne yóbbu nañ leen formation dans des écoles professionnelles de la santé ba léegi ñu am seen liggéey di am seen terang am ci ñoo xam ne aussi formé nañ leen ci optique ba nga xam ne partenaires yi aussi semaine bi yëpp ñu ngi ci affaire verre yi am ay partenaires yoo xam ne dañuy yëngu ci ORL xale yoo xam ne mosuñoo dégg ñu def euh, examiner leen defal leen appareil yoo xam ne boo waxee ñoom danañ dégg et loolu aussi day dem ba euh, améliore seen langage. tey ñu ngi teg xeer bu njëkk ci école bi lan lañ ci jublu waaw liñ ci jublu rek mooy dimbali population bi dimbali xale yi parce que ku ne xale ne citoyen de demain te xale yi euh, lu nekk mën naa génn ci ñoom président de la république mën naa génn ci ñoom ministre mën naa génn ci ñoom docteur mën naa génn ci ñoom donc xale bi bu ko xeeb milieu bu mën di nekk. boo ko jàppalee rek mën naa nekk kenn suba bu ko defee ñoom ñu gérer dëkk bi liñ ci war a def yàlla mën naa def ñu def ko ci waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant